loolu en compte euh, xam les hommes euh, naka lañ leen di organiser ba ku nekk di appliquer li nga xam ne mooy euh, loi dëgg bi bañ a nekk di di nekk benn à la marche di def la neex wala nga xam yoon ba pare bañ ko def loolu yëpp nekk na loo xam ne yu gars yi war ko ñu bàyyi en compte mm. ñu xool ñan la fal kan la teg fan yow xam lan la Euh, kii boo ko bëggee defal promotion sur la base de quoi ngay defal promotion lu tax nga bëgg ko def un président président de chambre un président de tribunal tel le président de cour tel lan moo ko est moom compétence am moo koy boobu wala yow la def kii voilà nu mu demee loolu dañ ko war a xool mm. nga ñëw rek vip nga am benn promotion boo xam ne yow ñi la jiitu kii nga leen ñu war a xool loolu yow fan nga jaar ba yegg foofu loolu lépp dañ ko war a xool parce formation même dans la formation également formation bi aussi comme ni ma la wax euh, yi fii au départ boo amee maîtrise si nga def concours magistrature jàll ñu former la nga nekk juge wala ça dépend procureur ça dépend léegi il faut nga master 2 mais ci biir formation bi aussi ah dañ lay jàngal yaakaar lu bëri ay droit dañ la ko jàngal li nga war a appliquer ak yeneen yoo xam ne ñoom xëy na école de supérieure de magistrature moo ko xam mhm. mais dans tous les cas yow war nga boo génnee nga xam ne yow sa sa sa liggéey mooy servir la société mhm. mais pas se servir toi ak lu ñu la mënti jox foofu lu mu bari bari yow da bàyyi rek def li nga xam ne euh, moom mooy avancer état mooy avancer mooy tax parce que justice mooy assurer stabilité de de l' état bu justice jaxasoo rek état bi day wu. woolee li ñu dund en 2021 2022 2023 ba 2024 li ñu dund yëpp bokk na ci loo xam ne euh, lépp lu ci bëri ci côté justice la jógee xanaa il ñu tëggaat ko assise yi yaakaar dañ ci bàyyi xel bu baax a baax defar la l'organisation des hommes ba pare defar les textes ba pare li nga xam ne textes obsolètes yoo xam ne. surtout leeratul ci bopp ni ñu dindi ko. article quatre vingt article deux cent cinquante trois article cent quatre juróom am na lu mat cinq articles yoo xam te ni vraiment. Ah, oui c'est vrai foog délimiter ko délimiter ko. effectivement hmm? atteinte à la sûreté de l'État lu mel ni délit d'offense au chef de l'État. délit d'offense article quatre vingt. à la sûreté de l'État lu mel ni délit de diffamation. oui lu mel ni l'ordre public. lu mel ni l'atteinte aux institutions lu mel ni le terrorisme. acte de terrorisme boo xoolee ci réforme bi institution tam bëgg nañ ko trop waaw voilà moom laa lay wax boobu moom pratiquement ñu bëri mën nañ ci dugg ci la ñuy benn benn euh, ah, bu ndaw rek président bi ñu am tey lu ko dugal du atteinte aux institutions voilà pour avoir critiqué le fonctionnement de la justice mooy li ma la par un post Facebook directement c'est des infractions trop vagues